ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين لا ريب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون والذين يؤمنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك من ربهم وأولئك هم المفلحون من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون قدر الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غطاوة وعلى ومن الناس من يقول آمنا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بالمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون يخادعون في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يقسمون في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدون لا يستعذئ بهم ويمد في طغيانهم يعمرون الذي يلطف فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا لا يرجون قوم بما كانوا يكسبون من عمل فلنفسه ومن أسعى فعليها ثم إلى ربكم ترجعون الكتاب كتاب الحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم يختلفون ثم جعلناك على الصريعة بناء فتبعها ولا تدع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمون بعدهم أولياء بعد والله ولي المتقين الناس وهدى ورحمة لقوم يقيمون أم حسب الذين اتبعوا سيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياء ومماتهم ساء يختمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق والميزان كذبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم ñu bëree bëree bëri fenn toog suñu sëriñ sëriñ bu mag muy saxlu sa man dama wax ne képp ku dëkk kadu jege ko foo dem da nga baax te loo jege mu baax ndax moo taxaw wax ne ca daar nay bàyyi leen xëccoo bàyyi leen tooñ bàyyi leen fenn mënu tax ma wax ko kuy fay doote képp kuy lu coow doon noppi képp kuy tooñ kenn moo laal waaye li kan moo la ubbi sariya am na sariya lu na bu la bu la nit jamoon mbaa mu toog sa benn baram bu la nee nga toog benn baram waaye fenn toog bi lépp yàqu tey fenn toog moo ko yàqu ndax fay fenn fayu mu yem ca lool dafa jafe de wax lay ko ne ko bu nit duggoon sa soxna te sa jabar nga ne dinaa ko dinaa ko def nii def nii mbaa ma rey ko mbaa ma yóbbu ko kii kon ana lu wuura daal du sol soxna te boo duggee si soxnaam dangay daal di kii wala ndax def bi la sariya wax waaye dangay jigi waaye nag tawhid li mu la wax nii ko koy fenn ana ko ana ko nangu ku bañ kan la yàlla mooy seet ko soob ñu dugal ko kon looy fentoo moo tax sëy boobu ñu ne la léegi li leen lay boole li lay jafe-jafe bi yëpp mooy ku ñëw rek jàng ku ñëw rek julli ku ñëw rek xoor ne man ci maa ngi ci lislam loolu boolewul ci lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku mu sa ak waxul bu nga julli mun na xaar nga daal suuf war a koo jël tey bi waroo ko kon lu mu lay wax loo ashhadu an laa ilaaha illallaah te baat boobu kat moom lay la wax ndax mu ne faax lam xamal laa ilaaha illallaah dem nañ sax mu ne tudd ko tudd ko baax na de bay xam li moo ndax loo tudd xam ko moo gën tudd ay millions ay milliards baax na waaye am ko xam ko am ko moo gën am nit ak nit tudd yàlla it waaye fexe ba am yàlla moo gën a waaw mu ne laa ilaha illa laa ma jégale sa bakkan yaa xam ku góor ku jëm jaamu ko wal mu'miniin wal mu'minaat wa maa taqallabakum man xam naa li ngeen di yëngu taa gën a dugg dara am ku ma kon loolu mooy baax kon léegi léegi tawhid mooy tudd yàlla xam yàlla moo lay boole ci lislam waaye jëlee rek fekk ñuy jëli nga jëli fekk ñuy war a ñëw toll rek lu jëli jàpp nit bi bu tabaxee nekk ba mu bâtiment waaw wala tudde ko boutique ba mu climatique ko def ko lépp tudde ci marchandise amul solo jëm itam bu amul ruu loo ko mën a taaral amul jëm kon moo mooy lan mooy lislam ku am lislaam rek foo boo amee tawhid rek loo def mu baax tawhid nag neexul a forcé nit neexul a wane it neexul a jox parce que nit a ngi ne day dem lay woon yàlla dem lay woon ne laa woon lay dem mu ne kii woon naa ko yàlla sax waaye loolu boo watul da nga yow sabab da nga yëg ne sax waxal ko hmm? diw kay gis na yàlla wala tan ma ko woon yàlla wala mu ne gis na yàlla diw moom woon yàlla loolu moo gën a wér diw woon naa ko déedéet loolu neexul a woon léegi am teram sa waxoon rek na may def ko def bisam lay wax nan lay def ko def maa ngi balu naqaree woon ne la moo tax ma yàlla defoon ne man maa ngi seet moo toog ma ñu ne ji nekk dama jafe dugg ci mbir mi dafay yomb na waaye yéen a ko jafe moo tax léegi pour gàttal sariya li mu lay jàngal lépp mooy ñu de ngir nga fàttaliku yàlla ndax yàlla ci kontu xam-xam mu buggee ñu xam ko bugg ñu wetal ko bëgg ñu jëflante yiw dafa bind ne ndax bu ñu bëri tey boo ko waxoon ne gis naa la wala daje naa ak yàlla waaye la na nga naa mu ne kii day foon day koy ko hmm? waaw kon lan laa koy kon nit ki gis boo yëg yàlla moo tey képp ku bëgg lu baax rek bu leen gisee dina kontaan ndax képp waxuma la de te ku gis ne rek xelam dana dellu si yàlla loolu moo gën ñett yi nag war naa nit gis ba xelam dellu si yàlla maa nga wax nit dellu si yàlla maa nga jëf nit dellu si yàlla ndax moo taxoon yàlla bi la boo ko moom la boo ko deful ci moom ma la wax te lii bokk na ci la mën a fànn waaye wax itam bokk na ci mën a fànn mooy mooy xam leen yàlla njëkk xam ne yàlla na ngeen xam ma ko la ngeen ma jox képp ku ma xamul mënu ma yàlla duñ ko xam ci ay kayit kayit yi daf lay joxoñ ndax taw yi dañ ko dindi waaye nekkul luñ kenn ndax bu doon loolu ku ñëw rek mën na jàngal xam waaye nag njàng kese kese kese wallahi mënu la ko am moo tax nag boo jàngee nag dina la ni ngay waaj ni ngay wute ni ngay wutee mbir mi ak waaj yi muy mel ak boo ko jotee ni nga ko war a toppee ak boo ko jotee ni nga ko war a dundee boo mën a weer mais lii baax na de mais lii baax na de mais lii baax na de ndax képp koo xam ne tey tey gisoon tey maa ngi maa ngi ñëw ngeen gis loolu te mosuma jaar si daara mosuma jàng te loolu dafa dafa gis gisoo loolu xam nga loolu yéeme na loolu moo ko bañ. yéen a may jiital waaye bi ma sañoon tey itam damay jël kenn ceeb ndax am na ay waaye nag ay saag yu bëri bëri comme yéen ñi leen ñaanal yu bëri jàpp ndax kat bu ñëwee day wax ne oh man yéex naa moo tax mu di leen ñaanal loolu. boo leen waxee nag ñu ne kii def may waar damay jaar ñu wallaahi du loolu jëm bii képp ku ko gis wala nga gis ku mel ni man bu fekkee ne waar mu loo yéemu la jarul wax sax wax jarul la dañ koy gis rek loolu rek la ah, kon bu ko defee ah oustaz mën nañu gàttal di rek ñu ñaanal leen gudd fan ak wér ki nga xam ne moom la fi bàyyi itam muy xalifam comme ni ko kii waxee rek ñu ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko doo weeral siram doo teñal ko yéen ba mu motal ko yam même baax na lool waaye mu tamit baax ndax li tey tey ñàkkul am na ci jaar bi ñoo xam ne waaye yaatal ak dekkal moo tax mu def ko noo bari na ci daara yi ñoo xam ne ay ustaas lañ man nii am naa ñaata ustaas kenn ci daara dem dafa soj ak ñeneen ak ñeneen bu ñu ñëwoon mën nañ def di waaye dëkkandoo comme ñu ay dëkkandoo te mun ngeen li am ngeen li xam ngeen li loolu da ngeen def bu boba mu leen go ngeen di ko def ngeen di fu nekk woon nañ am ngeen kon yàlla na ñu tay di ay at yu bari bari bëri lépp lañ fi ñaan nit yalla ko yalla na am na ci njort bu baax baax oustaz Dione kon kontaan nañ bu baax jërëjëf jërëjëf kon ah lii rek la ci bu a wax du ya du du bëri sax ndax ñun béréb yi waxtaan ci am nañu ay waxtaan waaye nag bu nekkee nii ngeen ñu door a dellu foog yi tam ñu sant leen xaaral leen ay xarit waaw lii rek la ñuy sàpp rek ñu bàyyi yoon mu def ñaan.